kon li ñu war a développé dëgg dëgg dëgg ci pôle de développement boobu ñu fas yéene def ñaari meeting waaye bu Sédhiou bi raw na meeting dafa boole karawat ak meeting donc Sédhiou gagné na ba noppi. ñu doon nañ def meeting Ziguinchor meeting Kolda xam ngeen tax ñuy def meeting campagne dafa métti te ñëpp bëgg nañu ñu dem seen dëkk ce possible il faut que nit ñi di ñu accompagner parce que war a sillonner le tout Sénégal en 20 boo bëggee def les quatorze mille villages les quarante six départements les cinq cent cinquante six communes et les quatorze régions c'est quasiment impossible moo tax léeg-léeg dañuy bëgg nit ñi góorgóorlu ñu dajee fenn la ñuy waxtaane dëgg-dëgg ci pôle bi nañ ko gën a dañ ci gën a développé bu si kanamee à Ziguinchor mais région de Sédhiou et département de Sédhiou bu ñuy catégoriser les régions daf ko boole ci les trois régions où sévit le plus la pauvreté et pourtant et pourtant potentiel bi nekk fii ci nga gis ci beneen région Sédhiou a tous les potentiels possibles ci agriculture ci pêche fluviale ci exploitation des produits forestiers et ligneux, et non ligneux même, ci tourisme ci bépp fànn booy mu ne jël Sédhiou rek wala économie Sédhiou am na un potentiel potentiel boobu nag développé nañ ci lu xóot a xóot a dans le programme l'agenda de transformation bi nga xam ne mooy horizon 2050 ñu war koo décliner par cinq ans cinq ans cinq ans ñu ci cinq premières yi est-ce que bëgg ngeen doy nañu leen wóolu ngeen ñu est-ce que bëgg ngeen ñu appliquer agenda boobu yéen ñëpp vous savez que ça doit passer par une étape importante le 17 novembre parce que malgré tout rek barki démb bi may def meetingu Kaolack ak y a quelques jours quand je faisais le meeting de Thiès on a commencé à vous présenter le bilan de ce qu'on a les six mois loolu yëpp def nañ ko ci jamono joo xam ne on n'a pas le levier législatif mooy yoruñu assemblée nationale. mënuñu voter leen loi qu'on veut même loi de finances rectificative ay Daffé gi nii doomu Sédhiou la xam ngeen ni mu représenté ci parti bi. tey jii gannaaw bi yàlla defee président Diomaye président la République moom laa tabb mu remplacer président Diomaye nekk le secretaire général du parti. mu nekk député à l' assemblée nationale bi pré bi eh, ba ba bi na Birame Souleye Diop ñu nommé ko ministre mu jóge assemblée nationale bi ma dajalee groupe parlementaire bi nee naa leen Ayib Daffé mooy doon président groupe parlementaire bi. kon doomu Sédhiou am na cër bu am solo ci parti bi moom assemblée la ne woon xam na li xew assemblée. pendant six mois lu mësut am Sénégal gouvernement toog na pendant six mois mënuñoo liggéey dara ak assemblée nationale parce que duñu foon majorité heure bi waroon na fekk ñu voté suñu loi de finances rectificative ba nga xam ne yenn aspect suñu projet dinañ ko dugal ci budget bi mais on n'a pas pu moo tax importance su élection bi day tolloog importance élection bu ñu mooy ngeen jox ñu une majorité écrasante pour que ñu commencé mën a dawal et ce qu'on va appliquer pour la région de Sédhiou xam nga Sédhiou bokk na ci région wala région bu ñu ëppal ni ñu dekkoon décompté ay abri provisoire mooy aujourd'hui am na encore ay xale yoo xam ne ci ay crainte la ñuy dem jàngi ji bu wisee bu wisee tuuti sax du ñu mën a dem jàngi ji loolu di un des problèmes le retard infrastructurel parce que Sédhiou dañ ko yéex a érigé en région région bi nee naa leen région naturelle la woon ñu dagg ko def ko ñaar à partir de 1984 génne région de Kolda ak région de Ziguinchor Sédhiou ne woon ci biir ñu dellu si waat ci dernière réforme bi la ñuy a jël Sédhiou def ko région moo tax Sédhiou dafa am un retard à rattraper en termes d'infrastructure muy région boo xam ne dafa bëri ay bras de fleuve ak yu demee noonu ñu war def des ouvrages de franchissement pour nit ñi mën a déplacer wu facilement wax naa léegi lu jëm ci écoles yi les hôpitaux les postes de santé les universités les lycées parce que war na mën a am université comme yooyu yëpp ko dajalee ma suñu programme mëgal suñu projet te dina bari loo xam ne yéen a ciy teg seen bët mais dafa am fu muy jaar mooy il faut ngeen jox ñu une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. ma duggee Sédhiou nag gis lii xam naa ni loolu am na ba noppi waxtaan ak suñu candidat dina ma Sédhiou Sédhiou mokk na ba noppi le 17 moo fi des ngeen gis résultat bu mucc ayib. kon suñu xel dal na la ca des nag dinaa leeral benn mbir rek parce que dafa am programme yu ñu lancé woon fii régime bi fi jóge moo ko lancé woon ñu koy tuddee PSD muy programme de désenclave désenclavement balaa ñuy ñëw ñu programme bi arrêté woon parce que ñoom dañ doon parax paraxee pour gaaw def ay commencé ay chantier population yi nekkoon nañu gaaw votel leen mais niñ ko defee woon baaxul bi ñu ñëwee ñun on s'est rendu compte que defuñu li ñuy wax étude d'impact environnemental te Grande-Bretagne bi financé projet bi dafa ne projet bi balaa nga koy commencé il faut nga def étude d'impact environnemental mooy nga xam tali bii ñu bëgg a def fii est-ce que mënul yàq leneen est-ce que mënul am impact bu bon ci environnement bi ñoom jotuñu woon def loolu. ñëw nañu rek andi seen i bulldozer commencé di xoos pour que les populations encore les voix ñaareel bi ñu gis ni dañoo am dañ cee profité dugal ci biir affaire bi des commissions yoo xam ne mat na 47 milliards commission yi war a séddoo ñoom est-ce que loolu jaadu na 47 yooyu buñ ko dugalaatoon ci projet bi mun na def deux et la région de Sédhiou bi ñu ñëwee ñu gis loolu yëpp ak yeneen yoo xam ne su ma ko détaillé fii day gudd loolu tax ñu jël ñun notre responsabilité de dire que on arrête les chantiers ñu auditer projet bi xool niñ koy relancer dans de meilleures conditions il un mois j'ai reçu le ministre britannique pour l'Afrique li mu ñëw dafa ne woon dafa ñëw pour procéder au lancement mais bi mu ñëwee ma recevoir ko sama bureau bi ñu waxtaanee ba pare daf ma ne li ngeen wax yëpp d'accord naa ci parce que lii ñun xamuñu ko coon on est d'accord pour revoir le projet defar ko nu mu gën a baaxee ci population yi ñu doog ko lancer pour am les résultats que l'on veut mais dégg nañ ni l'opposition dañuy wër entité bu kenn xeeb boppam ci affaire bi parce que ñun dañoo bëgg am victoire boo xam ne fi la ñuy jógee ñi nga xam ne joxoon nañ leen seen chance ñu yàq réew mi dootuñu ñemee taxaw devant les sénégalais pour réclamer leur suffrage. seet dañu raxas leen ba ñu set wicc daal di partir sur de nouvelle base donc yéen waa Sédhiou yéen waa Sédhiou. le 17 novembre ñaata député ngeen ñu promettre ñun au niveau national nous voulons 150 députés 150 députés yooyu nag xam naa ni les deux députés de Sédhiou sont déjà acquis les trois députés de Sédhiou sont déjà acquis waaye li ñu bëgg ñun parce que bu ngeen voté woon Ayib Daffé am 50 pour cent nekk na député waaye nit su ngeen amee 70 pour cent. la ca des da ngeen koy reversé ci liste nationale bi loolu moo ñu permettre ñu am 150 députés wala 155 députés te loolu la ñu bëgg est-ce que vous êtes prêts à nous donner ça kon li koy joxe mooy le des le reste de la campagne continuer liggéey bi dugg leen ci kër yi dem leen ci gare routière yi ci marché yi parler avec les populations de Sédhiou pour que ñoom résultat boobu ñu ngi leen gërëm di leen sant kontaan nañu trop. merci beaucoup asalaamaaleykum